Mesdames, Messieurs, ne mettez jamais les clés de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre, ça vous risquez de regretter ça. Bienvenue à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Feeling Dakar TV, la première chaîne people et politique du Sénégal, mais aussi euh, ci People 221, l'un des d'actualité au Sénégal. am nañu mbégte bu baax a baax mbokk yi xarit yi euh, di def ak entretien une artiste qu'on ne présente plus, une artiste dotée d'une belle voix euh, kooku nag du kenn moom la ñu gëj a gis si paysage médiatique bi mu wax. mais tey tey war nañu def mën ak moom entretien spécial boo xam ne ça sera un peu spécial parce que gëj na wax Sokhou Bébé bonsoir maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu internet yu lay seetaan ci Feeling Dakar ak People 221. maa ngi lay fay asalaamaaleykum waa Sénégal micro bi. maa ngi nuyu ñëpp euh, di di di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi cliquer ci lien bi pour euh, déglu Sokhou Bébé. Mm-hmm. wala nga seetaan ma merci beaucoup. ete nga woote de sañse nga de. Hmm? dañ ko oyofal rek sañse wuñ dara. ete nga de da ngaa def sa couleur yu bëri daal di daal di toog. merci beaucoup <laughs> d' accord alors Sokhou Bébé ça fait temps ñu gëj la gis euh, ci paysage médiatique bi waxuma médiatique bi sax mais ci scène musique sénégalaise bi euh, tu étais enceinte euh, am nga doom ci jàmm ak salaam lan ngay xaar pour defaat sa comeback. incha allahu rabbi li ko waraloon mooy temps bi ma toog Euh, nekk enceinte ak di nàmpal sama doom. Mhm. too rek incha allah bu bu bu feree rek dinañ nekkaat ci milieu bi incha allah. d' accord d' accord alors euh, ñu ñu waxtaan tuuti ci ci ci actualité euh, dañu koy commencé ak showbiz du une manière général yow booy toog sa kër di jàngat bis ni muy doxalee ba jàngat nga am ci showbiz. macha allah lépp a ngi tegu ci yoon macha allah. ak nii mel nii. defanteeg su ko bébé samay interview bi ak yow bëgg moom mu doon ay tontu deux secondes. waaw parce que du ma fi wax loo xamante ne nii. non da may dugal wala nga mettre ma à mal ak artistes yi te man lool du ma ko nangu. loolu taxul ñu tapé ay kilomètres ñëw pour def man tamit loolu taxul ma toog fii. pour tontu la léegi léegi c'est ça. li tax ma toog fii pour tontu la. pour bien peser mes moo xam man li ma lay tontu. waaw mais mën nga ma tontu mais mënuma parce que yow tey jii man su ma fi waxee lu rëy. yow da dem tëdd di nelaw man la nit ñi di woon li tax nga def ak lu tax nga wax lii. donc man lépp lu ma lay tont dama koy xam du tàppe du ragal mais man doo ma wax looloo xam ne après daf may dugal. wala mu may jaxase ak Sénégal mën naa la wax. dama lay invité rek nga bañ a susceptible te nga bañ a nekk sur la défensive. non non xaaral xaaral rek euh, mën naa lay poser ay questions nga tontu ma mais mënu ma di poser ay questions tu me réponds par deux secondes. kon boobaa entretien bi minutes la ñuy am. showbiz nga ma laaj. ni muy doxee ni muy doxee gis nañ que ni léegi talent euh, sa bopp ba bokk ci showbiz bi te boo amul talent sax yow na nga fexe ba am ay clan d'une manière générale showbiz gis nañ aussi yàqante bi waxante bi maa fi mën maa fi teg tànk maay meilleur nangam maay meilleur nangam maay def lii maa wax lii euh, analyse boobu noonu nga am ci ci ci showbiz man loolu man xam nga lu a tontu mooy. Ah. man je encore très jeune te ba yàgguma ci showbiz awma lu ma ciy jéem a mën a wax naan nii laa ci gis wala lii laa ci gis man je préfère ma nër ci loolu focus ci sama yoon am amuma lu ma la mën a leeral ci wàllum showbiz. d'accord gëj nga génne single mu percé c'est quoi le blème. blème bi mooy li ma la wax damaa toog damaa toog nekk liggéeyuma carrément. avant ngay am am jëkkër sax ga nga génne single mu blème sa dernier single bi nga génne fekkuloon nga am. jëkkër fekkuloon nga am doom ban la. Euh, xaw ma ban sax mais. man sama dernier single bi ma génnee ndogal dal ma. muy sama du ndogal sax euh, li ñëw mooy sama sama sama sama bi ma nekkee enceinte. li may yëg kan moo ko déggul kan moo déggul son boobu loolu dafa percer ay millions de vues la boo duggee YouTube di nga ko gis à part li may yëg. Mhm.

di dina am lu nekk si ginnaaw problème bi lan la. problème bi du kenn yàlla mooy xool lu ko neex defal ko jaam ji. inspiration yi moo fi nekkatul wala. <laughs> man samay son parce que ñu ngi koy wax da nga am dëkk man damay woy di créer samay son man. Hmm. samay son maa koy woyal sama maa koy créer sama bopp jënduma son. Ah yàlla dafa def li may li may li may li may def. dama koo mën jëndoo son yi nga fi woy yëpp da koo ko da nga ko bindee sa bopp ma son yi nga fi woy yëpp man hmm. jëndu ma son kañ laa ko kañ kañ kañ kañ kañ kañ kañ laa ko woy hmm. woo ma maa ko woy bi ma amee sama problème ak papi Euh, mu ne mu ne comme quoi man damaa jëlaat son je ah. suis très d'accord parce que man damaa jëlaat son tax artiste bi mel ni yow nga jël son ma parce que loolu maa ne ba wax loo ma loo xam ne ne wax day ànd ak dégloo dinaa la wax loo kay mun wax ba doo wax moom waaw man dinaa ma la ci fekk mooy maanaam wax loo ma loo xamante ne après ba ma fët i mer te loolu du ma si fekk da ma parce que damay tamat fekkee di la tontu da nga may këf doo may sax ma àggal te man maa ngi wax ak yow li may wax li mu ngi nii loolu moom parce que man su may wax su may wax damay posé di la tontu normalement donc yow tamit soo posé rek déglu ma waaw dama ma expliqué léegi bu mel ni yow naka ngay reprendre son jàmbur te avisé woo ko parce que boobu c'était dans mes débuts boobu damaa nekkoon ci samay début jara bi déggatuma la si jàmm fi artiste buy door featuring man pour man loolu garaawul. garaaw na kay. loolu kay garaawul parce fi jàmbur. d' accord d' accord créé na buzz ak polémique bu bëri ci réseau ñëpp naan que. woy jàmbur lay moo fi créé sàll ngaari lam tooro mu neex lool. maa fi créé woo ma ñu juboo bébi yow woo ma maa yëg bi ma nekkee yow ba léegi ma su te kenn du ko demantir wala génn ne sama son nga jël amul. donc man li ma la mën a expliquer mooy jarab bi li tax ma jëlaat ko ci waa ji dafa nekk son c'était dans mes débuts te fii Sénégal en général boo nekkee jeune talent. Hmm. bëgg a génn ñëpp dégg la da ngay jaar ci ay featuring moo taxoon ma njëkkee foofu te ba ma ko defee fi ma bëggoon ñëw mooy pour xamal la ne man xanaa ma ma bañ a bëgg wala ma bañ a créer bi ma ko defee mu génn wax ca ëllëg sax la dellu studio ci laa woy woo ma ma woy woo ma mu neex ñëpp ma xam ne man même bu dul wu jàmbur sax su ma toogee rek ma xalaat créer lu ma defee day neex donc foofu laa la bëgg a ñëwal nag boo ma waxee ne ma ndax doo créer <laughs> ku créer woo ma ku créer lu may yëg te yëpp a neex ku créer sañse bi mujj sañse bi dafa neex ñëpp a ngi koy tiktok tëggal ma bongo yi ma pàkkar ñi loolu kenn du ko dindi man en tant que artiste wóolu naa sama bopp te xam naa ne li may def dama koo mën. donc euh, benn featuring moo fi am donc euh, gisuma leneen leneen loo mën a wax pour euh, jéem a déstabiliser gisuma ko quand d'accord tout à l'heure jël comme excuse nga ni da nekkoon ci ménage euh, nga nekkoon ci diggante moo tax sa nga xawoon jël benn recul sur sa carrière professionnellement parlant gis nañ ci ay artistes yoo xam ne takk doom teewul ñu ngi ci paysage bi ba léegi di def des singles yoo xam ne sax carton di créer des choses yoo xam ne nit ñu ngi koy challenge waat ci réseau yi mm. euh, est-ce que loolu excuse li nga wax ni sëy bee tax non non man dama ba xam nga du question de sëy bi dama ne la grossesse bi moo tax. ah d'une manière générale. voilà non non na lépp di leer parce que boo ne sëy bi day mel ni man sama jëkkër daf ma tere musique wala sama mbokk jëkkër dañ ma tere musique donc du sëy bi. rumeur yooyu déggoon nañ ko aussi ñu ne sa jëkkër daf la tere way. sama jëkkër musuma tere musique. ah bon musut am. donc man damay wax ak yow précisément dama lay expliquer les chose clairement sama ëmb bi moo taxoon ma jël recul toog. jox gëdd sama doom ak àq ak yelleef ba suñu borom def mu fer si jàmm ak salaam ma reprendre sama ay activité de temps en temps sax da nga gis ma def lu sew diggante bi xam nga génne juste rek pour nekk fi ba tey ni ñi xam ne maa ngi fi maa ngi bëgg li may def carrément et que duma ko mus a bàyyi mais su feree incha allahu rabbi man dinaa jotaat sama jot bi nga xamante ne amoon amoon naa ko nekkaat ci game bi bu baax a baax a baax te dinañ gis avant ak après. incha allah lu tax nga toog ba heure bi doo koy choisir def euh, euh, carrière boo xam ne dañ ciy dugal tuuti buzz euh, parce que gis nañ récemment ci réseau yi ñuy wax que ni Sidi gis nañ la nga relayé ko à travers ses mm. mm. a. sax ne. lu tax nga def loolu. <laughs> ci parce que musuñ la xamee artiste bi daa mel ni da nga maa bëgg a de bëgguma la dóor taxaw ma dafa mel ni xamoo jaañ naar de waaw daa mel ni da nga maa bëgg a dóor léegi ma expliqué la cay jaañ naar jaañ naar boog <laughs> man damaa gis information bi ah. ñu dugal ko man ma jël ko capture ko dugal ko macha allah lu baax la di. artiste bu mel ni yow. mais eh. nga gis Sidi Diop ni mu toll ci réew mi mais léegi déglu ma léegi déglu ma mu toll ci réew mi. d'accord nga jël ko relayer ko tout en sachant lu mu dee dee mën nga informer deux deux deux cent personnes que ni Sidi Diop dafay takk Zeyna Ndour est ce que du erreur ci yow. d'accord léegi est ce que man dama ne Sidi Diop dafay takk Zeyna Ndour. mais affaire bi da nga may may ma tontu parce que yow du ma nangu nga jaxase ma ak ñi may seetaan. maa la dàqa tontu foofu man loo waxee rek mën naa laa tontu. man Zeyna Ndour xamuma ko suñu wax Sidi Diop c'est un frère et je le respecte beaucoup sequma ma sequma sax ak moom ay waxu relation que ça soit clair sëy pour man lu baax la waxuñ Sidi Diop lañ fekk muy def lu bon waxuñu Zeyna Ndour lañ fekk muy def lu bon donc man su gisee benn information Zeyna ku ma naw la parce que jeune jigéen la xale la mu ngi liggéey ku jàppale yaayam la Sidi Diop mu ngi si carrière mu nekk un frère kon mu su ma gisee ce genre d'information ah ma ne pour man lu baax la rek du lu bon ma ne ah macha allah dugal sama statut noonu laa ko jëlee léegi nag ki ko jël man ci samay contact la nekk. Hmm. man ki def def bi. Ah, parce man xam naa ne. Hmm. ci samay contact la nekk. et que dem xam naa kan la woo naa ko waxtaan naak moom nee naa ko da nga ma bëgg a mettre en mal avec Sidi Diop wala naa waaye du mën a ne. parce que ñooñu ku ci mel ni Zeyna xamuma ko musuñu wax waaye je le respecte beaucoup. Mm-hmm. te dama ko naw ndax bëgg liggéeyam ak bëgg yaayam dafa jàppale yaayam. Mm-hmm. man loolu laa gis. Sidi Diop c'est un frère te séquñu loolu sax séquñu ay waxu gel ak jabar ak yooyu ko sax su ma ko ojoowee toppandoo naa woyam mu apprécier jeex na des fois ma gis ay affaire envoyé ko mu reetaan jeex na mais amul dara loo xamante ne nii man def naa ko wala ma jublu ko ci méchamment non non non non dama ko def rek non non jublu ma ci loolu mhm. man je juste mis en statut parce que dama jàpp ah, loolu de bu dee lu am la. parce que tu voilà parce que j'étais damaa kontaan. mais est que jàppoon ni bu mel ni Soxu Bébé buy dugal mariage bu toll ni Sidi Diop ak Zeyna Ndour ni ñu mel ci réew mi. est que waroo woon jël sa téléphone. Mm-hmm. nga laajte information comme ñun koy defee. xëy na boobu man mbégte est que lii c' est nga ne Zeyna est que lii c' est vrai. ko amoo contact moom mais Sidi am nga contact ak moom. Sidi Diop su ma defee loolu peut mais xëy na ci lu mel nii laay jàngatee lu bari lu mel nii dina tax ëllëg su ma gisee te yenn information wala dara ne xalaat ah bés da jotoon na ma def lu mel nii ñu jël ko titre ko nu leen neex taxaw wax ne soxna Dieng moo ne am na ci lu ko leer rek yu kenn xamul non non man dama def confiance rek ki ki ko dugal sit bi ko dugal parce que moom dafa ne soytu na ko ba mu leer. ah ma ne xanaa nit ne xanaa nit kat sañul sos lu rëy li ne moom saytu na ko ba mu leer mhm. ay huit heures la woon ma ah macha allah dimanche ah ma def ko sama statut site boobu noonu diaspora 221 moo ko dugal non man xaw ma xaw ñëpp information yi fa lañ ko amee te diaspora 221 non man li ma gis gisuma information yi ci diaspora que information bu c'est avéré est que site da takk dimanche non non xaw ma ci dara à part statut bi ma def noonu te ci kii bi laa ko jëlee internet bi mënuma ci wax leneen. ci diggante bi woo Sidi Diop laaj ko. non non nii nii nii doo ma ko wool. du ma ko woo. doo woo Sidi nga laaj ko. nga ne ko est-ce que da ngay takk sama sister. du ma ko woo xam nga lan laa ko gën a mën a def. woo ko ne ko baal ma àq kat parce que ñu ngi jéem def loo xamante ne tey yow boo am na nooy xoolee soo comprendre mun nga foog ne dama ko def pour leneen wala boo leen gëmee ñoom ci seen jëf. mën nga foog ne leneen moo taxoon ma jublu te jublu ma si woon loolu dama ko gis kontaan comme ni ma la ko waxee sànq ma jël ko dugalaat ko sama statut mais di ko woon naan kon di ko laaj pour lan may def loolu pour lan. du ma ko def damay jéggalu kay. laa mën a def. et si réalité c'est vrai que ni Sidi Diop daf koy takk dimanche yow artiste naka la lay def information boobu nga. xanaa kontaan ne sax du ma kontaan déplacé wu dem ci xew bi macha allah su fekkee ne dëgg la macha allah loolu lu rafet la. quoi parce que Sidi Sidi <laughs> du ko bon naa aussi du ko bon te gisuma lu ñaaw ci diggante boobu donc. Euh, mais soxna ne leneen lu ma. soxna ci amul ay poursuites judiciaires. sa staff naka la koy dundee sa famille naka la koy dundee parce que da def fausse information. nga def li a wax ba mooy man maa ngi jéggalu. parce que mm-hmm. tamit du ma la topp yow ci sa rythme su ma la toppee mën naa wax loo xamante ne dama si juum li ma mën a wax daal mooy maa ngi jéggalu bu baax a baax baax si statut bi nga xamante ne def naa ko te balaa ma ko def comme li ñu wax rek mënoon naa cee am lu ma leer naññ

annoncé que nii du bokk ci élection yi nga xam ne si la ñuy jëm muy 2024 yow mi nga xam ni mën naa jàpp ni doomam ga bi nga yëgee xibaar boobu mu ne du bokk ci élection yi qu'est-ce que ça t'a fait. damaa kontaan parce que damaa xam ne su jëlee décision boobu c'est parce que mooy li gën ci moom mooy li gën ci képp koo xamante ne bëgg nga ko donc président moom lu mu def rek noonu la dama koy ñaanal rek yàlla na ko suñu boroom borom woyofal euh, yoonam bi nga xamante ne ci lay tegu. bu joxee nguur bi incha allah. xaaroon nga ko mu ni duma bokk parce que ñu bëri ci Sénégal yi dañ ko bett da leen bett tant pour moi ñii ne day bokk ñii ne day forcé bokk ñu toog toog tekki-tekki benn dégg benn discours à la mu wax que ni finalement du mujjee bokk est ce que yow it aussi bokk nga ci Sénégalais yi mu bettoon ne du bokk. lu ma la mën a xamal daal mooy président lu mu def rek xam na ko maa ngi koy ñaanal di ko di ko di ko di ko xamal ni que mbëggeel gi ma am ci moom gisuma lu koy effacé. que ça soit nguur wala ñàkk nekk nguur man dama koy bëgg ba abadan daay man parce que li ñu liyee muy Fatick rek mu ëpp lépp. Mm. man damaa nekk Fatick ba pare bëgg Fatick bëgg siin siin bi ma doon gëm ko nag torop. man du ma def dara te jiitalu ma Fatick wala ma boole ci waa Fatick. macha allah donc président munoo nekk Fatick waa nekk siin siin nekk doomu fatik nga nekk ci sa nguur. Mm-hmm. soxla ku la way soxla ku waneel fësal say réalisation man ma nekk fi en tant que Faticoise yàlla baaxee ma sama baat bi bu ma amul ay millions yu ma la woyee yu ma la jàppalee sax mm. dinaa utiliser sama waa woy la lu àddina yëpp dégg te sama yéene mm-hmm. ma koy defi ma nekkoon xale bu ndaw dajale woon ba am sama 35000 du ma ko mës a fàtte. macha allah jugee Thiès faq école dem ba Dakar studio Chérifou ak Job Sabré fay leen defa defaloon la son boobu yàlla xam na yéene bi ma amoon ci son bi xëy na moo tax mu yegg tey fii waaye fii dàq ma fa way kenn ku ne woy na la loo xamante ne ni tey ku ko dégg na gongo waaye suñu borom daa def tey ji ku ku wax président tudd ku wax président ne ay la ko suxu bébé woy ba suñu borom sax dafa def na lu ma la woy mu neex ñëpp ndax xëy na mbëggeel gi ma am ci yow la. ak mm. cofeel gi ma am ci yow. mais dara du ko dindi su ma continuer di wax. pourquoi sooy wax ci sa diggante président on a tendance di gis ngay jooy euh, gis naa récemment aussi ci benn podium mu toog ngay woy ba jooy waxee xol euh, Socko Bébé da ngaa bëgg si président ba mu jaral la ngay jooy nii si interview bi. sama ronga ñii. Oh. ni muy génn sax neexuma neexuma xam nga la moo tax. di nga gis ku ne dama koy def pour am lu ma am. ma wala dama koy def. di dóor damay dóor. loolu yëpp dégg naa ko. non la ça c'est naturel. sama sama amur ci Macky Sall. président de la république. non dafa dafa bari oh, lii du sama orientation def naa interview bu ne mais euh, bëgguma di jooyloo samay invité c'est vrai yow da nga bëgg président. Euh, te lii ngay def nii man mën naa gis ni danga ko bëgg defar nga ko ci benn podium waxee xol ba euh, ñëpp xam ni Sokh Bébé mi dafa bëgg président Euh, li aussi preuve la que nii ñu nekkee ci yeneen opposition bi war nañ jàpp ni kii Soxna ba xale la bu bëgg président jàppee ko papa di ko wëy wëyee ko non pas parce que da nga far ak moom wala far ak ñeneen nii mais yow da nga koy wëy parce que da nga ko bëgg mis à part artiste bi nga doon jàppee nga ni am nga droit bëgg nit ba mu jaral la tuur ay xéwal euh, président bëgg bi nga ko bëgg baa yëg na ko moom. gis nga bi mu waxee ne dootul dootul bokk. Mm-hmm. bi ma ko déggee damaa tëju jooy xam nga lu tax ma jooy jooy ma ndax damaa xalaat ay xaalis wala dara non non non damaa jooy parce que dafa ji sénégalais yi loo xamante ne nii delloowuñ ko ko. Mm. man bëgguma woon wax affaire politique mais président dangaa ji sénégalais yi loo xamante ne delloowuñ la ko. Mm. mooy maanaam liggéey bi nga fi def. Mm-hmm. nga waroon dem tey dem boo xamante ne ni tey ñëpp la waroon jaajëfal. waaye ku ne gis na nu mu demee. waaye man Soukh Bébé maa génn jaajëfal la ci son bi nga xamante ne ni defal naa la ko ak xol. Mm-hmm. te ku ko déglu même bu dee sax du du du soppay présent da ngay gis dañ naan son bi neex na. Mm-hmm. waaw yal na yàlla oyofal la sa yoon yàlla boo gis dala roy ragal après incha allahu rabbi man loolu rek laa man côté wax ci yow. du ma bëgg sax di ci xuus ba sori parce que à la fin mën naa loo xam te ne après nit mën na ko gisee neneen. Mm-hmm. fekk sama xol bi mooy wax. Mm-hmm. fii ku ci nekk ki nga bëgg ñaanoo yàlla tey ñu ne la. bàyyi ko par force. Mm-hmm. wala génne ko sa xol par force. yow mii di ma taan sa yaay bëgg gi ko bëgg tey bu nit ñëwoon ne la bàyyi sa yaay par force est-ce que di nga ko def. man nag président toll na ci man foo xamante ne nii du ma nangu ku ñëw ne ma par force danga koy bàyyi. sa waajur bu la. du ma ko mës a nangu. bëgg ko mu naturel. moom xam na ne bëgg bu naturel laa ko bëgg. voilà man bëgguma woon sax ñu wax si waxi président. comme jaral la nga jooy waaw. billaahi que c'est naturel duñ ko defee. ba ñuy waxtaan ci président. te waxtaan bu naturel la mu jaral la nga tuur ay xéwal on s'en excuse aussi di la si di si jégalu bu a baax auprès de nos très chers nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel euh, euh, euh, mu doon président boo xam ne wax nga ko tout à l'heure il est sorti par la grande porte comme on dit wax na ni du bokk mais bi mu ne du bokkul aussi gis nañ ay jegeñaayam Euh, dem APR ku si mel ni Amadou Ba ah, ak ak ak ki nga xam ne mu Abdoulaye Diouf Sarr euh, ñàkk déggoo am fa ba ay sànnante xeer rek yooyu am fa dina la métti booy dégg yu mel neen ñoo xam ne dañoo jege président. nan loolu moom franchement duma ci wax parce que man xaw ma la fa xew ba loolu am. Mhm. donc man duma ci bëgg a wax parce que lu ma ci wax rek. xam nga nit mën na ko interpréter neneen et que mooy loolu. d' accord man xaw ma ba tey lan moo fa xew. d' accord yow yaa ma ko yëgal. d' accord nañ tëj chapitre boobu parce que bëgguma nag entretien bi ñu def ko ay yooyu quoi voilà nañu tëj entretien boobu nañu tëj ñu wéyal euh, suñu waxtaan man ak yow on va parler de people aussi euh, Sokhou Bébé muy génne ay single muy neex sénégalais yi est-ce que mën nga xaar sa featuring ak ñi nga xam ne yéen a démarré ndaw génération ah, ku ci mel ni ay Jayla ku ci mel ni euh, xale yi fi nekk di wéy te nekk sa génération euh, lu tax duñu gis ngeen di def ay featuring seen biir. incha allah rabbi loolu yëpp dinañ ci taxaw bu soobee yàlla parce que man su ma ñëwaatee carrément incha allah dinañ gis ne euh, j'avais des projet yoo xamante ne damay def featuring avec tous les jeunes talents loolu yëpp dinañ ko dina ñëw incha allahu rabbi. Mhm, mhm, mhm. d' accord si réseaux yi aussi gisoon naa fi benn benn xibaar bu doon fuité et puis une vidéo qui est très sur la benn jongoma wala benn xale bu jigéen bu génn di wax naan da nga bokkoon ci benn natt ah, ngeen amoon ci ay problème loolu est ce que buzz la woon bu mu doon ut moom wala loolu dëgg la. non non man awma problème ci ci benn natt parce que man nattuma mais ki ñu ko def. dama ko xam sama xarit la hmm. moom daf dafa dafa am dafa xamoon borom natt bi léegi borom natt bi ayda sama xarit bi ñi doon natt ci borom natt bi xamuñ borom natt bi sama xarit bi lañ xam ñooñ buñ nattee ci ayda Aida day jël versé ko borom natt bi léegi borom natt bi nag moo xëy dema xaalis bi. Hmm, voilà noonu la demee. moo waral sa tur man bokk wala moo waral sama tur tur tur tur génn ci man musuma bokk natt. d'accord ma natt wax dëgg yàlla mais sama xarit chaque jour dama koy wax moytul chaque jour dama ko koy wax parce que chaque jour dama ko naan man mi ngay àndal damaa nekk Sénégal yëpp xam ràññee ma. waaw ah, donc te yow da nga fës ci man. Mm-hmm. am na loo xamante ne buñ la si gisee wala ñu dégg la ci rek dañuy foog ne damaa man it damaa nekk ci biir moo tax damay bëgg rek ngay jubal foo toll chaque jour loolu laay dëkkal ci noppam. te moom xam na ne njëriñ rek laa ko bëggal xëy na nag moom dafa joignable elle est trop gentille disponible kooku xamante nañ Aïda sonn ci moom torop sonnal ko fu ne mais man li ma ci gêné rek mooy problème am na moom daw na dem ak na dem na xaalis bi mm-hmm. yow ki nga xamante ne yow sa nit la woon nit ñi xam xamuñu la yow moom lañu xam don versé ci ci ci ci ci yow ci moom moom mu lay versé yow man j'espère que ak foo munti nekk. Mhm. ak lu problème métti métti métti. Mhm. kooku bu lay woo jëlal rek. jëlal waaw nga ne ko xamal ko ne ko ah nii nii la demee incha allah rabbi dinaa fay mais ay da lekkatul naanatul. la mhm. nalawatul ba yandoor bor bi toll na ci cinq millions. Oh. huit cent yooyu. ci koo xam ne da koy natt ci koo xam ne nii benn xale bu ndaw la yor san la di liggéey. ah loolu ñun mën nañ ko sax fay mais li ma bëgg rek mooy ñun ñëpp ay ay nitam buñ dajaloo woon rek. boo ko doon wax def message moom mi yóbbu xaalis bi peut-être. Aida ay nitam buñ dajaloo woon rek cotiser loolu mun nañ ko fay loolu amul problème. Mhm. mais lenn rek man moom moom moomu si metti mhm. mooy kooku man laa bëgg rek ñu xam ko ba jàpp ko ba mu reconnaître erreur am mu fay nit ñi seen xaalis moom parce que buñ ko fayee dafa yomb torop loolu kese la. parce que Aida lekkul Aida dem na fu nekk porté na plainte fu nekk mais ñu ngi ci kawam daal. d'accord d'accord ban relation nga am ak Babs Diaspora. Babs Diaspora Euh, bi may soog a door 2015 moom moo bindoon Soxubé laa fii de Titi Sénégal yëpp dégg ma ci loolu. léegi man nag ba may xale ba tey sama papa lenn la def ci samay nopp muy ngor del gore del reconnaissant del reconnaissant du moins. Mhm. nit ki bu la defalee lu baax yëg ko. Babacar dafa tax Sénégal yëpp xam ma xëy na yàlla ci moom la waxoon ne ci la samay mbir di jaaree. moom li tax nit ñi di wax soxu bébé doomu titi ci moom la jugee. parce que moo ko bindoon. waaw parce que moo bindoon soxu bébé la fille de Titi chante mieux que sa mère. mu ko bindee man loolu duma si xuus loolu yëpp duma si xuus mais baaba Babacar moo bindoon loolu. d'accord voilà léegi bi mu bindee loolu man ma génn man nit ñëpp xam ma ci loolu daal man man man après laa def ay recherche ñu ne ma diw de moo bind site bi ma ne borom si bi laa bëgg xam. Hmm. ci lañ ma booleeg borom si bi ma ne ne yaa bind lii mu ne ma ah, ok ñu xamante noonu. waxoo ko dara noonu ngeen xamante rek. parce que daf la bindal loo xam ne euh, du dëgg doo doomu titi. bu doon leneen la la bindal lu ñaaw di nga dal ci kawam ne ko lu tax ngay bind dal ci kawam dindi fexe nga ba xamante moom. après laa ko xam. waaw xamee lan nga ko wax. loolu bës bi dem na ba pare lan lañ ci mënaat est-ce dem ne ne mais man loolu mënu ma ci dara moomu ma kontam moom moom moom sitam yow tey boo ma dugalee nga tiitere lu la neex. Mhm. est-ce la dama lay laaj. dama lay déglu rek. léegi dama lay laaj. mais bu dee loo xam ne neexul la mën nañ ko. waaw léegi déglu ma rek. mën nañ ko dindi ma déglu ma damaa bëgg nga tontu ma. dañ doo ko mës a dindi. <laughs> ndax c'est pas la première fois et la dernière fois may def ay ay ay interview ak ay site ñu may titreel loo xamante ne nii après du ma neex ma wote pour ñu dindi ko te duñ ko dindi. d'accord sa xaritoo foofu la léegi danga may déglu rek ma àggale ci Babacar ba mu leer parce que bëgguma tamit ñu yem foofu rek sénégalais ne man maa komplo ak Babacar bës bi demeewul noonu nee nga xamoo ko xamul déedéet bi ma koy dugal xamuma xamuma ko damaa bëgg mu leer bi mu ko dugalee ba pare man laa def ay recherche borom sit bi wër ko ba xam ko mu ne ma waa moom la waxtaan lañ waxtaan nag maak moom la duma ci xuus. moom la raison yi tax déglu ma rek déglu ma loolu moom la concerné. waxu la yi tax est-ce que mën nga maa déglu. man buzz jaralu ma dara. man buzz jaraloon bu ma ko jaraloon chaque jour may def toj-toj fii ku fi def toj-toj am buzz mais man buzz jaralu ma loolu boo bëggee buzz na la buzz boobu ñaa nga ñaan yàlla mu jig la d'abord. man bës jaraluma dara bi bi laa waxtaan ak moom léegi li waxtaan maak moom ndax ñun ñaar la concerné yaa ngi dégg après ma ne ko yow mu ne ma ma ne ko say jikko doy na ma te li ma gis ci yow doy na ma mu ne ma ma ko def naa la sama manager li ma waxtaan ak moom nag ba ma ba ma dégg ko moom ba ma dégg ko ci samay nopp ba def ko manager hmm. man maa ko xam du buzz du am lu may soxla ci moom damaa xam ne ku xam milieu bi la ku mën a liggéey la et que suñ borom may na ko dara ci showbiz loolu moo tax ma dénk ko samay léegi parce que mu yow mënoo di dugg ci soobis te amoo ku la gën xam milieu bi ku la mën a gunge te moom yàlla dafa def moom laa xam voilà mu yaa yeggali ma si jàppale ma ci sama yoon noonu la demee. te ba tey jii nii man moom ñu ngi ci jàmm ak salaam. moo lay manager ba léegi nii. voilà gisuma lu tax ma koy bàyyi wala ma koy wor. d'accord Babsou Diaspora ba léegi mooy sa manager. waaw d'accord euh, soo ko bëggee bëgg nañ ci yow bu baax ci entretien bi nga ñu accordé merci beaucoup Feeling Dakar ak People 221 yëpp ñu ngi lay gërëm bàyyi la rek nga tàggatoo. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm bépp téléspectateur boo xamante ne moo toogoon di ma seetaan. Mhm. yàlla am jàmm merci beaucoup. d' toi aussi ñu lay encouragé di la ñaanal aussi carrière bu brillant Sokhou Bébé di artiste chanteuse doon koo xam ne daan tout à l'heure nañu ko xel parce que actuellement elle de retour si euh, musique sénégalaise te mi ngi wàcc des choses importantes merci à tous sénégalais qui nous suivaient depuis le début maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en tous. Merci.